asalaamaaleykum président assemblée nationale ak député yëpp maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant ci yokkute gi nga xam ne moom nga ñu indil euh, ci Sénégal ndax fiñ la teg man nga ko xam nga lépp luy yoonu assemblée nationale am nga dal gu toll ni kenn ku ne mën nga koo déglu ku nekk di nga ko jox lim moom ñu ngi la ciy sant di la gërëm di wax ne euh, Sénégal gii Afrique Sénégal moo ci gën a am démocratie Sénégal moo ci gën assemblée ndax foo xam ne cent euh, cent soixante et quelque te munoo fexe fexe fexe ba am contre mu mat dix personnes Sénégal ko am ci Afrique ñun démocratie ci la ñuy dund ci la ñuy dox. te tamit fii mooy li wolof di wax boo waxee ci néeg waxal ci pénc waaye da ngay wax ci néeg ba pare dem ca pénc ma fii mooy pénc mi ndax tey budget bi dañ ko wote ba pare ci commission yi lañ ko wotee ba mu leer nañ presque lu mat sans et quelque wote nañ ko ci commission yi waaye dañu dellu si ci pénc mi ñu leeral ndax bi ñu waxee dégg ngeen ñu laajtewaat ku am sa xalaat ci budget bi wax ko kenn ku nekk jël xalaatam ne lii dafa ëpp lii dafa manqué ministre bi wax ci lu mat cinq personnes sept personnes ku nekk wax ba ñëpp déggoo ne budget bi tegu na ci yoon kon kay xam nga ne loolu mooy leeral kon budget bi budget bu leer la mu se le ministre sa budget bi nga xam ne moom nga moom élif ko ci sa ministère leer na yeneen budget Sénégal yi yëpp yi nga xam ne moom nga moom leer na parce que dañ leen a wote ci ay commission ba mu mat sëkk ñu tàcc ko te fu fu nekk daay am contre ñaar wala ñett wala ñeent waaye war ngeen a bàyyi xel ñii wote bigse yi ndax képp ku dul wote sa bigse waroo ko recevoir waroo ko jox dara ndax bu ñëpp meloon ni ñoom réew mi du dox te bu doon seen sago tey sa bigse bi duñ ko wote ñun ñii xuloo di wote ku ñëw bu leen soxlaa gis leen jafe te ñoom fu ñu fuggee seen bunt yi ngeen ubbil leen loolu moo tegul ci yoon nañ ko bay nit su la dul dimbale doo ko dimbale nit su laay xeex danga koy xeex boo dee nit ko am fulla képp koo xam ne nag jàng amoo xam-xam ndax yow da ngaa dem ca daara ja mokkaloo alxuraan nga ñëw jënd silabeer ñu di la ko liiral boo ñëwee jël big di wax nit ki naan ko liiral ma ko kooku boo waxee ci penc da ngay am gàcc ndax li ngay wax xamoo ci tuus kon ay nit ñu ñàkk yar ñoo xam ne amuñu xam-xam ñooy nekk ci lu ma téeméeri nit matuñ ñaar fukki nit te bu ñëwee yaakaar ne mën nañoo lijjal ne nit ñi dañ leen a ëpp yar ëpp leen teggiin ndax benn nit rek mën naa yàq ndaje ndax bu ñëpp di booy coow ñëpp noppi dañ naan yàq na ndaje ma ñëpp daw nañ ñu nga fee ca óol ba di xaar télévision yi pour ñu mën leen a wane waaye bañ nekk ci commission yi ñoom ñi nga xam ne ñoo jiite parti yëpp amu ci kenn ku ñëw soo waxee ñu ne xale yi ñu ngi dem ci mbëkk mi man 80 laa dem Paris fanweeri junne laa jëndee billet bëri ci samay morom ñoom ñu koy wax yëpp ba ñuy nekk ay ministre ak directeur boobu Macky Sall moomagul réew mi seen doom yëpp ay passeport diplomate lañ leen utal yóbbu leen Paris ñu jàngee fa amu ci kenn ku am usine boo xam ne bii mën nga faa dugal xale yi kenn kuy bay tool pour nga dugal fa xale yi amut kenn ku dimbale genn gune gi den ak yow sa kër amut su ko defee ñu ñëw naan xale yi xale yi xale yi France moom nit ñu yàgg nañ faa dem ba àdduna sosoo ba tey ñaa ngi jógee Gambie ñaa ngi jógee gaana ñaa ngi jógee Sénégal ñëpp ñii jëm Paris ñii jëm Angleterre kon loolu mënut a ñàkk dama ne nañ xam ne Sénégal gi genn la ñun ay nit ñu jub lañ yor ay nit ñu baax lañ yor ndax juróom-ñaari nit rek wala juróom-ñett mosuñoo wax ku contre mu mat fukki nit mosul am ñii dañu yëkkati ñaari loxo ñii yëkkati bopp ak tànk waaye duñ mos a fexe ba mat fukk kon démocratie am na ci réew mi président dinañ la gërëm dinañ la sant ministre de finance dinañ la ñaaxaat nga góor góorlu ak ministre yi topp ci sa kow yépp parce que lii liggéey ak yar ak réew mi baax moo tax danaa seede nag deer deer xaalisu réew mi la joxe nit yi réew mi la leen jox ku ci bëgg lu la leer li nga xam ne moom lañ jox ñooro indil ma dossier ma yóbbu la ci banque yi wan lañuy fay ak ñi fayagut Pape Sarr ñoo ko dalal xaalis bi ko joxoon dañ koo jox nit ñi ba mu jeex ñoom ñii ñëpp di wax ku nekk am nga ci te ñoom amu ci kenn ku dimbale say bokk ñi nga dëkkal xaalis bi ci réew mi lañ ko jëlee dimbale ko xale réew mi xëy na fay wala ñu bañ a fay waaye ñoom ñëpp jot nañ ci man de région bi ma dëkk fu mu ñëw fekk ma fa xaalis ba joxe na ko joxe nañ ko te ay lañ am ko ci bëgg lu la leer ñëwal ma wax la ci lu leer salaamaaleykum wa rahmatullah Euh, euh même si chez nous on nous apprend que si le futur est écrit, il est également possible de le changer. Alors, euh, ce que je voudrais dire, c'est que je dépose, enfin, je soulève une motion préjudicielle pour ajourner le débat jusqu'à la réalisation de certaines conditions. Les conditions sont les suivantes, Monsieur le Président. À 2020 a été une année difficile tout le monde puisque nous avons à la Covid. Et en réalité, le budget voté en, 2020, en 2019, fin 2019 pour 2020, a été pratiquement suspendu, totalement remanié. Nous avons eu donc un régime d'exception en matière de budget. le président a demandé une loi d'habilitation et qu'il va changer tout cela par des ordonnances. Nous ne savons pas ce qui s'est passé en 2020 pour pouvoir discuter de ce qui va se passer en 2021. Et donc, il me semble important, si nous voulons être transparents, parce que c'est de cela dont on parle aujourd'hui, il me semble qu'il est important que nous examinions les ordonnances pour savoir comment 2020 a été géré sous Covid-19. C'est un préalable. Sinon, on nage dans la choucroute, on ne sait pas ce qui va se passer en 2021. Ça, c'est la première condition. S'il vous plaît, s'il laissez-le poursuivre, s'il vous plaît. maa leen ko ñaan rek maa leen ko ñaan bàyyi leen ko bàyyi leen ko bàyyi leen ko mu intervenir maa leen ko maa ko ñaan bàyyi leen ko. Allez-y. Merci, monsieur merci, monsieur le, le Président. selon le règlement intérieur, doit être examiné par la commission des finances. D'abord, cela n'a pas été fait. Et c'est la raison pour laquelle j'estime effectivement, si on veut avancer en 2021, il faut ajourner ce débat-là et donc satisfaire aux deux conditions que j'ai citées, qu'on examine ici ces ordonnances, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et ensuite qu'on examine le budget de l'Assemblée nationale qui augmente. Voilà ce que je voulais dire. Monsieur le Président, merci de m'avoir donné la parole.